teg ko sama suuf si mbégte bi nga xam ne moo nekk cantal bi mu jooy mu nekk rek lu daw yaram àdduna moo ni mel ma lay noppi rek ndax sa yaay gërëm faa mu demee nii waaye jooy yu bànneex la ndeysaan ndeysaan jooy jooy jooy jooy yu bànneex dëgg la ndax tey bësu bësu bësu samar la bësu sant la waaye ay jooy sant la tamit ndax mami tey moo xewle mami Camara koo xam xam ko ci ambiance ak koo amee waaye tey nag ko xoolee bëgg sant ndeysaan yaayam ñëw ci baas muy jooy

may leen xamul dul daan dooleem fu yaayam tooge mamee ngi ci wetam fu yaayam tooge mamee ngi ci wetam xamul dul daan dooleem dong la mame xam baax bëgg ay mbokkam bëgg ay nijaayam bëgg ay ndeyam bëgg man maa jur Astou Nekk waa Gorée jàpp garaan ci lam man di sàcc muy say mi daan boole nag muy xale bu ndaw ba nag ñu tolloo ba nag gën bu baax rek la mami yaa ko yar maa ko yar man mii maa ko ndax digg tam yoo man xale lu ku bëgg ngeen xam ni ndeyama liggéey kër mu neex ak ku mu neexul bal bi tàkk na te dootul fay mami Cobra yow la réew mi bëgg mami soo demee Ndakaaru soo yeggee nag kër doon Youssou Ndour yow la Aby Ndour bëgg ngay doomam waaye soo ci bébé Rose yow bëgg xale yi jóge léegi nekk coalition boo xam ni waa Mamy Events ku ne xam na ni maa yor seen parole waaye nag dama demoon tournage maa ngi doog a pare waaye waroon ngaa xam ni guddi guddi ma fekk la kees mami ku mer fekkal sa yaay fa mu toog nga ko faat xët loo liggéey sama kër baay sa ndey liggéey liggéey bu bi doom day tontul ndeyam yaa tontul sa nay sa kër baay rawatina kees gi sa yaay wàccoon bi muy tuut oto police dugg fi kenn ramasse ku ma sa yaaya nga ne ba muy dem tubaar fakkal la Canada booba yi xewul sa yaay ba muy dem Amérique booba yi xewul sa yaay bi muy nekk international booba yi xewul waaye sa baay njëkk fond maa njëkk raax xam nga koo doyloo Serigne Fallou Baye Serigne Abdou Karim Mbacké ki ni woon sa baay ma demee ba nga xam ni karaw gu ñuul geeg gu weex gi jaxasoo nanu man sëñ Abdou Karim Mbacké xam nga lu ma lay laaj ubbil bu cër bi ma jox la ñaan gi mu nekk dara di baat bi tàkk ma ni Cobra xam nga ku ma ab sa giro manam Mbacké borom Washington DC dama pare di xaar toni bi jóge Amérique GP bi mu jóge ni ma faama fay maa ngi ay déport man ko kon neex na yàllaa ni woon yonent foo nekk ma fekk la fa xale bu gëm boppam waa Kees sax xam na lu ñu yokk Alaaji Maali rek laa gëm su duggee Ndakaaru doomi ndeyam di toog xam na ci dara rakkam yi mu bokkoon ndey ak xam na ci dara àdduna bi day fàq Ndakaaru di toj di dëbëtoo amul kilifa gu la amul nit ku baax ku la joxul cër nag su amee ci xale ndeyam a ko liggéey kër baayam mami Cobra bu ko kenn piis nan ni ko jàkk ndeyam daa liggéey kër baayam du sëngiyam xaw ma ndeyam de waaye xam naa ni nañ ko bàyyi xel ndeyam dimbali na jaam ñi sër na kër sëy na kër baayam sëy bu leer bi mbind mi leer ma ni Cobra jooyal ko am mbégte jooy sa ndeye ñëw ñaaj fekk si la sama rakk ji nga bari jom amoo ful nga gëm sa bopp di esa àdduna international ñu bëgg ma ni Cobra benn ci man mi nga xam ne international réew i ñoo may woo nan ma mami Cobra laa bëgg kon ab ma giro madame Mbacke borom Washington DC yaakaar naa ni bër bër ki jëm ci guddi man la yow man Mbassim Thiam mu ni leen pare leen na ngeen dem ci monsieur le maire Abdoulaye Diané jëndal na leen biir avion jox na leen agent de poche jox na leen logement boo leen di dal may naa leen essence ku mu neex ku mu naqari yéen a xew mais ñi xew da leen di defal lu baax sa baraka nee na jox na la cadeau GP bi yëg seegul mais dinaa ko indi enveloppe bii nag madame Mbacké la ko jox mami Cobra sa yaay liggéey sa kër bàyyi na mbind mi leer leetaru um ndey dooma koy jàng na mi leer sa ndey liggéey sa kër bàyyi mi leer dama ni na xiini man faama fay maa ngi fi ba fajar mami Cobra sama rakk ji tey xam nga ni Ndakaaru nit desu fa boo xoolee métu sama nijaay gor Jami Guèye ñëw ba heure am na lu ko waxal ragal waral doo juddu jéeri doo mën daan gaañ wàcce wu la fi doomi kees gi ñëw ndakaaru dëbb ko ñibbisi sama waaji sama waaji taalibe bi Fallu aw du sabaar bi ci jàng sama rakk ji sama rakk ji ma may bir xabi may nga ma jëmb sama rakk ji sa yaay nga nee toog nee ma siggal ni ma jàkk ma wax la ñaari baat sa ndey liggéey sa kër bàyyi bu la kenn biis nan la xool jàkk waaye nag ndur waale mbergaan ak sa yaay moom may téeméeri junni ci yow abinu sa ndey ju baax ji ju goy ji ki la fonk ki la faale ab sa nee na pareel danga koy fekk Amérique ci foire ba yàgg ko àndal kon madame Mbacke moo ma yónni ci yow borom a Afrique Vision moom nag moo la waral boppam moo la bëgg de moo la seet de dama ne xale yi di toog ba génn ñu baax ñi di leen ku nu boole ci rang bi sa ndaya jaayul pat ku nu boole ci rang bi dina wal sa waaye boo duggee Ndakaaru ful bi topp la mbooloo mi topp la àdduna yëpp ni kan ñu ne Mamy Cobra nga dem international nit ñi di la wër rawatina Dubaay nga nga xam ni fa sama jeeg bi ne kenn di yow doxalal foo jaar yoon la sa ndey da laa ñaanal jërë ngeen jëf merci beaucoup. yaay booy kontaan naa ci yow kenn di loo wax dëgg la defal rek léegi interview bu saf saf bu ñor ci nawet yaa xew de sama mag ji yaa xew yaa mën yaa riis merci beaucoup. Adja ñu ngi